asalaamaaleykum maa ngi nuyu jeunesse bi fi daje yëpp tey di njëkk sama nuyoo nag euh, Demba Kébé bi nga xam ni si mooy président basket municipal ci de Kébémer di nuyu Ibou Diop di baral nuyoo itam inspecteur de la jeunesse bi nga xam ne si mi ngi nii toog inspecteur des bi nga xam ne si mi ngi nii toog di nuyu amateur u basket yi nga xam ne si yëpp ñëw nañu di mbiral nag joueur yi nga xam ne si ñoo ñoo ñoo basket basket bi euh, su ma wax nag dafay ñëw rek ci di féliciter Ibou Diop ci deuxième édition nawetaan basket bi mu def ndax dañu waxtaanoon ma mani ko daal ma ni leen bëgg ni ñuy defee football ñuy def nawetaan basketball ci Kébémer su ko defee ñi nga xam ne si ci loolu lañuy ñuy yëngatu muy lu leen neex ñu koy def ñoom itam ñu leen di primé te itam ñooy mu mën a am événement yu nga xam ne sii dañ koy seetaan si boobu ba léegi ñi ngi ci defe naa ne bii mooy deuxième édition bi kon boog ñu ngi koy félicité di wax rek li ñu waxoon ñu ngi taxaw toujours ci seen wet fas yéene développer type de sport yi nekk yëpp ci Kébémer ni ñi ci nekk ci football bi nekk ci basketball bi noonu lay encourage yeneen discipline yi ñoom tam ñu tàmbalee développé wu bu fekkente ni ni ngeen di def ci basket bi am na yeneen coach yu nga xam ne si taxaw nañu bu defal ñu ko ci handball bi dana ñu tàmbalee am embryon d'équipe d'handball à Kébémer et je pense que c'est nécessaire. Monsieur l'inspecteur des sports, nous vous demandons de prendre des initiatives dans ce sens pour développer l'handball à Kébémer. Nous, dans le cadre de la réflexion du stade, de sa réhabilitation, nous sommes en train de penser à la mise en place d'espaces de jeu pour le handball, autant pour le le basketball donc maa ngi leen di gërëm di leen sant di féliciter équipe yi nga xam ne si ñëw nañu tey arbitre yi itam maa ngi leen di beral cant ndax at bu nekk ngeen ñëw encadré match yi maa ngi gërëm di sant équipe bi nga xam ne si moo nekk autour de Ibou Diop di def organisation bi félicitations merci. ñu tàcc monsieur le maire bu baax a baax yéen ndawi Kébémer bu ko defee comme ni ko sànq ni ko ndaw ñi nga xam si ñoo doon football defee daal di koy defal benn surprise yëkkati kado jox ko monsieur le maire ci taxawaayam ci ndaw ñi noonu la bu def aywa kon ñu xool surprise bi lan lay doon ndax nag monsieur le maire jar na ko bu ndaw ñi soxlaa yaa ngi ci seen wet. Euh, dama koy faral di wax ni chaque fois maire boo xam ne si doo jóge sa commune yombul loolu dañ koy jaajëfal kon mu nekk benn diplôme de reconnaissance encore une fois de plus ñu tàcc bu baax a baax Ibou Diop merci merci décerné par Ibrahima Diop à monsieur Mamadou Lamine Thiam maire de la commune de Kébémer hmm? pour une bonne collaboration et service rendu maanaam liggéey de ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax président Ismaïla liggéey tey danoo am jàpp donc ni ma ko waxee sànq euh, Kébémer tey danoo am gan muy euh, Maada Ndiaye c'est moom mooy capitaine bu ay sa jaraaf kenn ku nekk xam na ni moom ak Fadiaw euh, Camara ñoom ñoo gagné coupe du Sénégal en 2009 tey mu ñëw Kébémer ànd ak ñun ci parti bi nga gis li mu def rek wane na ni moom elle est talentueuse. léegi nag ñu bëgg a xam tey nekk la jàngat mu am ci Kébémer. waaw comme ni nga waxee sànq rek kontaan si yow Kébémer parce que dama ñëw mu mel ni fii laa amul différence ak fi mu jógee waaw ni ñu may jàppee ni ma jàppee fi mu jógee noonu lañ ma jàppee fii waaw mais dañ ñëw aussi pour xam nga rek li ñu jot a xam ñu ko ñu jox ko ko ndax tey nga ne Kébémer mën na génne ay ay champion. Ah, fu góor gi si génnee ñeneen ñu raw góor gi si jéem nañ ko génne incha allah. waaw mais jàngat bi nga am tey ci seen niveau. waaw niveau bi baax parce que xam nga li a bañ am ay joueur am mais fii am na am na am na ay coach ci moom bu metti pour euh, ñu am talent génn fii. léegi nga wax ñu tuuti ci euh, nekk bi nga nekk ay sa jaraaf. waaw jaraaf def naa ko presque quatre ans maay capitaine jaraaf. bokk si ancienne bi nga xam rek de surtout jàppale xam demee bu la waa NBA woowee. <laughs> waaw amiin. ayca ah, kon nag mu ngi noonu di ko jaajëfal bu baax a baax ah, ñu tàcc ko bu baax a baax nag. waaw ñu dégg tuuti neera équipement boo xam ni suñ benn comparateur benn Kébémer waa bu nekk à l'extérieur moo koy def léegi loolu comme nga ko def ci agriculture tey jii si football bi la jël ëllëg aussi bi si yeneen discipline ndax kooku aussi du double inspecteur du sport mën nañu ko seedeel bu dul woon pandémie bi am benn gosse international bu ñu doon organiser aussi mais pandémie ak Covid bi ko xaw tey jii nag ñu ngi jot ay équipement yoo xam ne ñu ko jox région bi yëpp équipement argile yi nga xam ne ñu ngi si région de Louga Soukra Kébémer ba Linguère ak Louga ku si ne doté na leen suffisamment d' équipement pour ñu mën a arbitre tey jii loolu lañ bëggoon di ko joxe tey jii ñu ngi appuyé aussi ASC Barket en équipement bi jox na leen benn jeu d' équipement bu complet aussi moom lañ bëggoon a jox vice président Barket bi beneen bi aussi ñu jox président ak nit ñi aussi loolu daal moo ñu fi dajale woon tey di ñaan aussi ëllëg aussi mu joxaat ñu yeneen équipement pour les autres disciplines ndax xam naa ne yaakaar naa ne si bëgg-bëggam si yéeneem aussi loolu la ñu bëgg donc loolu la ñu de manière symbolique tey jii di ko jaajëfal aussi di remercier aussi toute la population de Kébémer aussi si journée tey bi nga xam ne aussi dajale nañ merci Demba Demba Demba kay jël nga bi waaw waaw Aló. Aló. mboolem ñi nga xamni ci ñew nañ assister ci li nga xamni ci mom moy euh, tournoi bi ba tay ñu nekk ci final euh, basketball fi ci Kébémer euh, tay nak ñu and ak ki nga xamni ci mom moy ibu ci initiative bi nga xamni ci amalon nako kenn ku nekk gis na ni lii yombul nga wote ñepp daan lay ñew fekk si tay dañ koy bàyyi rek mu daan ñuy wax jangat bi nga xam ci am nako ci li nga xam ci wote nako waaw salaamaaleykum lay wax di santaat yalla bu baax baax baax.

xam parce que li olof Ndiaye di wax euh, rëbu ca rëbu ca coow la mu mel ni Ibou tey bi nga wootee gis nga am na ay champion yoo xam si teew nañ waaye y a des aussi yoo xam si ñëw nan euh, tey ndax yaa ngi mébét tey ñu ni ah ci bisu Ibou Diop bi nga xam si daf koy organiser saa su nekk am na ci ñu jógee fii daal di dem NBA wala dem ci yenn euh, club yu mag yi. waaw loolu à chaque fois dañ koy ñaan parce que ku nekk da ngay ñaan di dugg ci benn jëm. jëm ba parce que compte euh, wàññi boobu ci benn lay commencé daaw ñu ngi fi woon ak ay petite catégorie ren boo xoolee champion championnat bi bi ñu comme bi ñu débuté ba tey ay joueurs première division ñoo fi à chaque fois ñoom ñuy ñëw ay champion ak ay championne kon ni nga gisee sànq ci euh, marché yi ay maade ay joueurs première division la gañaan ay coupe du Sénégal Euh, affaire wakaam booy xool donc loolu booy xool dañuy dañuy xam ni kon niveau bi mu ngi jëm ci kaw quoi. loolu ci dañ ci sant bu baax encore. nga woote Kébémer wuy si la euh, jàngat bi nga ci am. waaw di sant yàlla di sant yàlla bu baax encore parce que woote ñu wuy si dafa neex mais booy xool jeunesse bi booy xool ren stade bi dañ koy defar jenesse bi ren booy xool vacances yi dama loo noonu ma toog avec euh, mes collègues ñu toog ñu waxtaan ñu ni pourquoi pas war ñu mën a ñëw. def lu ñu waroon def donte sax ci ay xat-xat lañ nekkoon mais dañ ko bàyyi parce que ñun Kébémer moo ñëw Kébémer lañ am donc ci lu ñëwee lancé programme bi ñëpp intéressé wu parce que boo xoolee dañ ko def yow yamale ñu ko rek ci basketteur boo xool ay taekwondo ay karatéka ay footballeur ay judoka lépp ñoom ñu ngi woon ci biir parce que du yamale ñu ko rek ci cadre basket mais fair play bi du ci joué parce que ay ay jeunes bu nek ci deuk dañuy xol li mën a développer dëkk bi ñu and ak moom parce que li ñu wax dañuy da ngay and ak jamono. donc dañuy def lepp lo xamni fi rek bu ñu ko defee jeunesse bi ñu centre sen bopp ñu ci loolu la ñuy lepp pour jeunesse kay Kébémer loolu moo tax ñu koy def. tay buñ ñu na xama ñi nga xam ne si nañ la ci euh, tournoi bi. waaw loolu dama ci premièrement dama Kébé moy suñu président basket dama Kébé bi ma depuis bi ma commencé ba tay ji à chaque fois daf may laaj damay woo est-ce problème wu problème kon parce que de bu di encore monsieur Madior monsieur Madior bu hôpital fi dal japp bu affaire mais heure buñ ko woyé day ñew taxawayam rafet luñ ko pas Fall bu Cap Sport pas Fall bu Cap Sport à chaque fois

ku dee euh, ku ñemee dana dee bi ma commencé ñoom it épaulé nañ ma jàppale nañ ma sama nijaay sama maam à chaque fois dana ma affaire yi am na réussir sama yaay daf ma yow à chaque fois di xool ci lu ma nekk xam lépp pour développement Kébémer la rek mais dañuy dañuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di kontaan ci ñëpp ñun tudd ak ñun tuddul ñëpp jàppale ni Ibou Diop ñu ngi leen di remercier yéen ñëpp à chaque fois duñ ko duñ jug ci di ko wax kontaan nan kontaan nan

jàppale euh, mu bëgg a euh, mu ku leen. waaw ku ci mel ne Baye Malick Samb moom indi ay jeux de yu bëri pour jox ko équipe bu Barguet ak ay ay euh, loisirs yoo xam ne pour arbitre yi. Mhm. loolu dañ ci rafetlu di ci kontaan bu baax a baax te en plus ñuy gërëm bu baax encore monsieur le Mamadou Lamine Thiam depuis bi ñu commencé dañoo ñëw toog maa ngi moom mu recevoir. di ko jaajëf ñu waxtaan.